Bienvenue sur Salam Vision. ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur ay maqaama yàllaaw bismil ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi bur yàlla dollino ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi bur yàlla dollino ay maqaam yàllaw bisimillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman onze billah bismillah inni waliyallah jërëjëfe borom Tuubaa xaadim rasul jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bokk internet yi nga xamante ni yéen a baaxoo suivre seen émission bu mag bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro ci biir Salam Vision ñi ngi amaat tey mbégte dellu siwaat seet si suñu xarit suñu jëwriñ suñu mbokkum taalibe ñu gën ko xam ci sëñ Abdou Ndiaye dëkk fii ci diwaanu Pikine di féetali léeg ca diwaanu Touba sama borom dogal moom it muy yëngu ci wàllu yi nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy wàllu ñaan lasraar ak li nga xamante ni tam mooy wàllu daanaka euh, euh, médecine traditionnelle ñu seet si waat ko tey bëgg a waxtaanee waat ak moom lenn ci xam-xam rawatina découverte muy maanaam gëstu yu mu def ci wàllu hémorroïde def ko itam ci wàllu ballonnement de ventre def ko itam ci wàllu li nga xamante ni mooy impuissance sexuelle mi nga xamante ni tey jii lëmbina na mi sëñ Abdou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di dalal ci biir jotaay bi naan laan salaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. sëñ bi ñu baax di siyaara. macha allah di dalal ak jàmm. Mhm. bu baax a baax. alhamdulilah di ñëw buñ fi ñëw. Mhm. ndax lépp rek njëriñal jaami la. Mhm. ñu ñaan lépp lu fas yéene wax. yàlla nañ ko jëriñoo. allahumma amiin ñuy dégg tamit jëriñu si. bu bokk jëriñu yàlla rek tax. macha allah wa salaamu aleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Cheikh Abdou ci nuyoo bu am solo boobu macha allah rabbi ak euh, mbooleem ñaani rek yal na yàlla sama borom jàppandal lépp ci daraje yi yoon ci yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam bëgg waxtaane waate feebar boo xam ne tey ji Cheikh Abdou dafa réew mi muy wàllu li nga xamante ne mooy impuissance sexuelle muy maanaam xeetu tële ñu bëggoon xam ñaata jàngoro yu làmbu ci biir tële moo am ak yow ñaata jàngoro ci biir tële googu ndax damay dégg ñu naan am na boo xam ne dañ koy judduwaale am na boo xam ne dalay dab am na boo xamante ne daanaka euh, da da ngay yëg sa bopp te muy te da ngay gaaw a jot sa bopp te xeet yi dafa mel dafa xeet yi dafa bari ci biir ci biir ci biir impuissance sexuelle. waaw impuissance sexuelle feebar la bu xaw day waar. lu mm-hmm. euh, ko gën a xamee ci mbirum olof. Mm-hmm. mooy néew kàttan. néew kàttan. Mm-hmm. néew a mbir mi boo si liñ ci waroon a mën. maanaam mën na ko ci dafa néew. gaaw jot sa bopp. dañuy boo ko tëgtalee. ñaari dañoo xaw a différencier. ok ñu bari na dañ koy boole waaye bokkuñu. Mhm. tëre nag dafa am ñaari façon. Mhm. am na tëre boo xamante ne ki muy dal. Mhm. da koy judduwaale. dama day judduwaale tëre. judduwaale tëre bi. am koo xamante ne tëre bi koy dal. maam bu doon man dem ba yàgg mënatul. mënatul tëre dab ko. su fekkee kooku dafa tëre. dafa am ñaari façon. bi nga xam ne nag kooku dafa néew kattan. mooy mhm. ki nga xam ne tey bu mënoon a def cent pour cent. Mhm. wax na cinquante pour waaye dix pour cent sax. ko man mhm. su defee kooku moom dafa néew li. nga xam ne dafa bëgg ko dolli kattan. ki nga xam ne dafa tële. day bëgg a ñaar yi nga xam ne nag euh, moo leen différence bi xam ne da kaa judduwaale ak ki nga xam ne da kaa dal. bokkuñu. dëgg la man ki nga xam ne da kaa judduwaale. man boobu mënuñu ko faj. waaw ñun du ma ko faj. biñ judduwaale moom doo ko faj. Mhm. du ko faj. dëgg waaye ki nga xam ne daf koo dal. Mhm. boobu dama koy faj. Mhm. ndax li koy waral. xam nañ ko baax a baax. ndax am na ñoo xamante ne maam sëy bari am ñoo xamante ne stress na leen indi tëri. am ñoo ne bari na jàngoro yoo ne day indi tëri. ndoxum siti dana tax a tëri. ndoxum siti. waaw ndoxum siti dana tax a tëri. am ñoo xamante ne imurit. ok dana tax ñu tëri. am ñoom te am yeneen jàngoro biir yoo xam te ne ñu leen indil te ñu bari yoo xam te ne bu ko fii duñ fi gaaw a jógee. waaye bu si nekk. Hmm. ñun bu ñëwee ba consulté ba xam ne lii moo tax euh, nga tële. Hmm. dinañ ko faj ba nga jotaat sa bopp. Hmm. macha allah. ki xam ne nag da kaa judduwaale boobu moom ko faj. nga xam ne nag dañoo néew kattan. nga man waaye seen kattan moo néew. ñooñu bu ñëwee moom. liñ lay jox si sens bi. si sens si sens bi nga koy mm-hmm. yëg. ok ndax kooku daal néew kattan. kooku mm-hmm. tëriwut mën na. mën waaye li mu mën moo bariwul. moo bariwul. te day bëgg man lu bari. Mm-hmm. bu defee kooku moom dafa am garab liñ lay jox yoo xamante ne. man incha allahu rabbi. di nga ndax ba si xale sax xala. xala tële la. Mm-hmm. ndax comme te na ngaa mën a ñu takk la xala. takk la xala yow mënatoo. Mm-hmm. kooku tële la. dëgg moom it si fi nga toog dañ koy dindee. Mm-hmm. xala moom fi nga toog. dañ lay jox dañ lay jox. nga naan ko la kon. la. ok mbirum baatin la lay téye. bokkut ak ki nga xam ne nag dafa dem ba mënatul. dégg nga ci li koy waral. ay feebar jàngoro li koy dal. wala sëy bu bari. wala fo bu bari. dem ba nga xam ne mënalutul boppam dara. ku mënoon sa bopp dara nag ñu ne doo doo mënal keneen dara. dëgg keneen mat a wax. waaw loolu it koy faj. bu mu judduwaale. incha allah rabi mbirum tere moom dañ koy faj bu mu weer. bu dee ki nga xam ne nag moom dafa néew kàttan moom. kooku moom dina la am yu lay jox rek. am na fi ay xeeti garab yu lay jox yoo ne. ay liquide yu defar. am na ne ay sunguf la. am na ne sax mbirum baatin la. ndax am na ñoo ne seen awa si boppam. yàlla mooy maanaam euh, mu mu mu mu mu mu tuuti daal. mu gàtt waaw. waaw am nañu seen awra day gàtt. Mhm. am nañu seen awra day sew. Mhm. yooyu yëpp ñoom suñu borom la. Mhm. waaye ñun am nañu liggéey yoo xam xamante ne képp kuñ ñu ko jox. incha allahu rabbi ndax am na ñu si jëfante ñoo xamante ne moom. ndax lañu laa wax sax ñun xam ñu ko. ndeysaan sëñ bi kër ga aw na baat. ñun dina xam sax. doo xam lu muy tekki. dina xam lu muy tekki. Mm-hmm. natt mbir yooyu la waaye bañ naan ban leeral yi. Mm-hmm. waaye képp ku ci jëganteel jaaral jaaral yow fenn fi ñuy jaar ak ñi say morom. Mm-hmm. wallaahi boo gisee li muy sant baax baax di ñu gërëm. ndax la ñuy def yow da nga naan lu mel nii musuma ko gis. waa te loolu nag dafa am loo xamante ne mbirum baatil la. Mhm. am loo xamante ne nag mbirum saayir la mooy suñu fakki reen yi nga xam moom la ñuy composé. Mhm. defar ko bu baax boolekaat ay mélange yoo xamante ne moom képp ku ko jox. Mhm. boo ko jëfandikoo ak lu mën a doon quelque soit lu mën a doon. maanaam di nga yëg sa bopp moom. macha allah waaw di sa bopp te macha allah puissance bu am doole la boo xamante Mhm. ñi fay jaar ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi waat ñu ngi sant bu baax a baax. Mhm. waaw mu doon lu am solo te defe naa ni defe naa ni garab yi ngay def ne base bi lan moo ko def defe naa da am amul benn effet secondaire bu ci am. Eh, garab yi ñëpp plante la. amul mhm. frais. amul benn effet secondaire. ndax loolu loo am toog moo tëdd bu dugg si ñoom di nga liggéey. mun gëstu la. tukki si. dem si fële. yaa ngi see gëstu nag. am si xam-xam bu leer boo xamante ne képp ku ngay dox ndax àq la si ngay yëkkatee dara jox ko nit. mu waroon eh, faju bu ñu wëlbatiku bu ñu ko ak loraane. dëgg dëgg te loo xamante ne xaj na ko fi jaar. dëgg la moo tax lépp lu mu fi di jëfante ak ku a jëfante boo ko jëriñoo rek. dañ dafa jar a bàyyi xel. ndax ñoo dara. comme te dafa war a wëlbatiku garab gi indil ko mm-hmm. ay jàngoro. kon nag bu dee ba jàngoro bi si juddoo moom daanaka jot. ñun sax na dëgg dëgg. waaw baax a baax. doon doon te ñëw tëdd rek si. dëgg la déedéet du mu gëstu la. ba ne lii dañ xam. bu baax a baax a baax. xam mbirum xam ne mooy mbirum sexe. xam mm-hmm. ko bu wér-wér-wér. dëgg ñu ko décortiquer wax si lu bare bare. ndax li waral la nit ki di nga xam ne euh, ay organes mm-hmm. day dem ba mën a di bàyyi mm-hmm. ba li mu doon mën mm-hmm. day am lu koy waral te yooyu yëpp xam ko bu ko defee dara di ngay ménage parent yooyu da nga xam mbir mi dégg di fi mu toll ak boo ko joxee nit ki parce que ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp yemuñu tey lay yow du man na ñoom tamit seen organe bokkuñu kii organe bi mu gaaw a développé. moom mm-hmm. la kii organe bi mu gaaw a développé. surtout te loolu yëpp day laaj nga xam ko. Mm-hmm. boo mënul si juróom faj. Mm-hmm. bu ko defee koy faj rek koo gis wala koo jëloon si wàllu faj. nga xam kii mbir naka lay demee si moom. te li ma la jox garab nga def utilise ko léegi léegi yow gis sa bopp. même garab boobu nga def ko utilise ko gis boppam. gis boppam fekk seen organe ñoo bokkul. organe ñoo bokkul. bu ko defee loolu lépp nag day laaj ci faj bi. nga di ko sóoraale ba kenn ku si satisfaire. ndax euh, loola gëstu lay la bu baax a baax baax. Mm-hmm. ak xam-xam. Mm-hmm. te loolu ñu si te ba tey jii ñuy wax ak yéen ñu bàyyi ñu gëstu ndax rek moo ñu ñor. wallaay des na ndax dañoo bàyyi lépp jàpp ko. Mm-hmm. te saa su ne ñu ngi si gëstu. gisee am xam-xam bi mm-hmm. a baax. macha loolu la si daan nekk. lu solo Cheikh Abdou Ndiaye wax ko wax dëgg yàlla te loolee defe naa ne dafa am solo ndax ne naa fi mu ne saafara boom boo xam ne dafa mujj a jur loolaange moom defe naa ne kenn bëgg ko donte donte donte donte ki ki ki bëgg lu ñu saafaraal ko sax bëgg ko waaye defe naa ni ki koy jëf itam ki koy saafaraal itam warul bëgg lu mel noonu ndax yàq réputation la loolu kon baaxul jëmul kër xam nga li tax ma indi question bi dama ci am ñu bëri ñu ma ci dajeel waaye ma gis koo xamante ni nee na da laa xam yow. moom xamul woon ni man xam naa la. ndeysaan xaw ma Gabon ngeen daje xaw ma Côte d'Ivoire. Uh-huh. ndeysaan mu wax lu baree bare ba expliqué garab gi nga xamante ni yaa ngi ko yor di ci faj ngóora ak yi nga ko booleel yëpp mooy li ngay wax am nga ci ay liquide am nga ci ay plante am xam ne bon da ngay dem ba toll foo xam ne wàllu baatin lay doon da ngay yor sa course wala nga yor say mbir mbir di waxtaan ci man ko ah mu ne ah ko ah saa waay kooku naa ko seeti de mu wan ma sa photo ma ne ko kii booy la mu ne ma booy bu dangereux mu ngi nii demal seeti booy bi nga xool li ma lay wax ma ne ko ah waaw nu mu demee noonu mu ne ma du ma la ci wax leneen demal nga seeti booy bi léegi Cheikh Abdou am na tey jii ñoo xam ne dañ lay gis dañ naan sëñ kii kii kii xale la kii nangam nangam maanaam mën na mën nañu bañ a am yaakaar wala ñu am confiance ci maanaam ne jëmm ji bu ñu xoolee ci jëmm ji te xamuñu ni mbir mi du du jëmm. waaw xam nga loolu ñàkk xam rek. Hmm. ndax suñu borom ay mbiram ñëpp see am. déedéet. yàlla sa xale lay yónni déedéet. wallaay ndeysaan. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom di jox ñu boobu bi. 40 mm-hmm. ans la am. ndeysaan ndax 40 ans ñëpp xam na ne. Mm-hmm. Euh, atum benn la dootu dëgg la kon mbir mi nekkul ci ay at. Mm-hmm. nekkul ci famille nekkul ci askan nekkul ci lenn. déedéet suñu borom la. yàlla moom képp koo xamante ne jom moo leen jàngi. jom hmm. moo leen gëstu. jom hmm. laa xamal. wallaay ay secret. Hmm. nee naa la bu dul woon nag xam nga àdduna dafa doy waar ak fi àdduna toll. te réseaux yi doy na waar doy waar mu rek mu daanaka mu yu bari na la ko décortiquer mooy lii ak lii ak lii ak boobaa boo waxee day gis benn waa ji nekk fii jël ko piraté ko. dégg nga di si def loo xamante ne amaana yow. lan ngay xam dégg nga moom xamee ko noonu. dégg nga mu te bu boobaa mën naa yàq lu bari. Mhm. moo tax yu bëree bëri ko mën a ci ay images. Mhm. da ngay gis ñu nii rek. waaw waaye képp koo xamante ne ci jëfante yow. Mhm. dina am fu ñu jaarante yow foo xamante ne. maanaam boo ko di nga xam ne lii moom du neen. waaw du neen. ndax euh, dafa am ñoom ne. li ma la ko wax rek baatin moo leen téye. ndax rab. day téye suñu kaay. garab ay suuf a reen yi. Hmm. dégg nga kese kese jox nit mu naan. Hmm. tàqale ko ak nit. dëgg la de. dafa am fi ñuy jaar moom ci mbirum baatin tàqale ko ak nit ki. Hmm. su ko defee mu mën a yëg boppam bu baax a baax a baax a baax. dégg nga kon loola mbir la moom te du ñuy décortiquer si ay image. déedéet. ndax mbirum rab dafa xaw a day. boo xamul doo si dem naa fu ne. wax la ay wax wax wax wax tudd ay tur sax. lay def sax yow yow <laughs> seen manqué rek. waaw du ko jaar ci tur yooyu. lu leer nga wax dëgg la ah loolu la yàlla dogal. am mm-hmm. na ah, yàlla moo leen bëri. dëgg la waaye boo jëflanteeg moom. Mm-hmm. dina xam ne yow jëflante na nga naan kuy war a jëflante. Mm-hmm. ndax dina gis boppam ci li ngeen jëflante. te loolu lépp ay mbir la yoo xam ne daanam ci ay nit ñu baree baree baree baree bëri. ndax loolu ñu mënta looy jur rek toog rek ñu nekk si mbir mi. déedéet dañ say tukki. gëstu si. xam ci lu bëree bëri. ki la naan daje nañ moom Côte d'Ivoire. wax <laughs> dëgg. ndax euh, foofu jaaroon fa te am na lu fa def. te mu ngi baal moom na ma ci lu doy waar sax yoo xam ne moom daa xajul ci jotaay bi rek waaye kon. <laughs> ñu junj ko ci waaw. waaw xam lépp la <laughs> déedéet sañu ñu ko. waaw loolu lépp it. Euh, dañ si sant yàlla baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax nit ñi dafa wax saa ne. Mm-hmm. mais képp koo jëfanteel. rafet. mu wax ko. Mm-hmm. bu ñaawoon it dañ lay taxay wax ko. Mm-hmm. kon dañuy sant yàlla baax a baax baax ba jur bi nekkee mm-hmm. ndax bu ñaawoon it noonu lay taxay wax ko. wallaay de saa yi gis nañ ko bu baax a baax. gis nañ ko saa su ne bu dugalee seen vidéo wala dara commentaire rek ndeysaan boo ko dégloo waaye dañ bu baax a a a a baax lépp it li suñu borom mooy lan lépp looy def nga ko si yoon te ko ci ak njub. Mm-hmm. ko ci xam-xam bu leer. wallaay mu mun see gis boppam. Mm-hmm. ndax mm-hmm. a def it mu ànd. wallaay waaye bëgg na mu fekk seese. day fekk nag ko ci lu leer. waaw yàlla jàppale la. ñun ci loolu lañ nekk. Mm-hmm. waaye xam-xam yi nag doonul xam-xam moom te doo fay feere ne mm-hmm. gëstu nañ ci. Mm-hmm. jàll nañ ci ndax buñ juddoo suñu daay suñu bàyyi ba dee. nga jàng nañ xam ak gëstu. ndeysaan. nekkatuñu leen amuñu amuñu benn métier loolu loola. Mhm. moo tax yàlla fi ñu si fa sutura. alhamdulilah ba fi ñu toll nii ñu toll rabbil alamin yàlla xeeb dolli te gën a dëgëral taxawaay bi te gën a euh, yokk xam-xam bi ndax wax dëgg yàlla koo xam ne xamul lu dul gëstu ak jàng. Mhm. wax dëgg yàlla euh, te li koy firndeel mooy nee naa Cheikh Abdou foo foo fekk Sëñ Abdou Ndiaye foo ko fekk mi ngi yor kaamelu alxuraan wala yaa ngi ko fekk mi ngi bind te lii preuve la ci li nga xamante ni bi ma yegsee moom laa la fekkee mhm. te damay gis sëriñ su bëri dañuy ut sax ñu leen di bindloo ñu leen di jël ci wàllu li nga xam ne ñu ngi koy jëflanteeg seen i seen i seen i seen i seen i waaye sëñ Abdou saa su ne boo ñëwee moom lu mu jëflanteeg client yi mooy toog mooy bindal boppam lu waral loolu. waaw xam nga li ko waral. dafa am nit loo xam te ne kenn doy ñu si suñu bopp. Hmm. ndax ginnaaw ban jàng alxuraan ba a jàng a hmm. hmm. war a defal. loolu doon te bari na bari waaye bi mm-hmm. waaye war nga see war a àq mm-hmm. sa bopp mm-hmm. ndax bañ àq rek dox sa diggante client ndax nit xamoo fu mu jëlee alalam xamoo lu mu ba jot baan bi bari joxe ko boobu a see mën a génn mooy tax alal ji barke mooy tax yow da nga defar am barke yaa ngi ci sàkku loolu lañ ciy sàkku ndax ñi ñuy suñ ñoom bopp sax am na liggéey bi la ndax léeg-léegi ñu engagé bind moo xam te ne hmm. day bari loolu ba am na jëmm yoo xam te ne hmm. ñu ngi fii dëkk bi ñoom ne yëkkati xaalis fay leen ñu jàpp ñu si nit ñi hmm. waaye am si lu bari loo xam ne moom kenn dañu suñu suñu bopp dëgg la ndax aar yu nit ki bi nga war ko si ay tur yàlla dégg nga war ngaa dagg ay xaati musalas wala ay murabba. Hmm. loolu du lay def loolu. Hmm. yaa ngi koy defal sa bopp ndax yow hmm. sa borom surtout yàlla bi ngay liggéey. ngir aajo boobu boo defee ngay def ba toog. yëkkati sa kuréel aajo boobu a faju. loolu nag du loo a def la. waaw waaye nag léeg-léeg sax ñu bind ko mais yéen jox nit ñi ndax bari bari waaye boo xam ne sa jot la ko may. waaye ñi ñu ciy jëfanteel ñoom dañ fexe ba seen xol seen ngir lépp rek am barke ak ijaar. waaw waaye nag ñu wax dëgg yàlla moom am na solo am tamit allah ndax mbir moom dëgg la. moom li wér na solo loolu macha allah rabbi te damay faral di dégg ci sëriñ si bari ñuy wax naan maanaam bind xaatim dagg xaatim xaatim ba am araf yu ca damm mën naa lor ka nga xam ne moom nga ko doon defal waaye dootu ko jëriñ. waaw day am. Hmm. ndax euh, nit ñi dañoo xamal ne xaatim. Mm-hmm. lu muy ubbee noonu lay tëjee. ok si boo ko xamulee. Mm-hmm. ndax maam Abdou Aziz radiyallaahu anhu daan na wax yal mm-hmm. na suñu borom musal si xaatim bu damm. ak bu damm waaye loolu waxin la waxin nit la. dafa laaj déggin. ndax day wan ne ne xaatim. maanaam day ñaan goo xam te sa diggante sa borom ndax pour yàlla di ngay jël adat ko adat nit ki lu si tur nit ki. di si ñaan suñu borom. noonu la mënee ñaan mu baax indi mu baax. ndey ubbi ko yëkkati ko mm-hmm. euh, ak pala bi mm-hmm. noonu la mën a loree mm-hmm. moo tax bu daa waxee noonu waaye nag xaatim boo ko xamul moo gën a gaaw ci tëj nit tëj ba mu ne kàpp mu gën a gaaw ndax noonu nga mën a dugal xaatim surtout ak aaju ba mu ubbi ko ñu compte na bëgg nit ku bëgg a tukki nit ku bëgg a falu hmm. nit ku bëgg a jëkkër hmm. nit ku bëgg a hmm. ak yu bari daal yoo xamante ne nit ki da bëgg loolu mun kaa dugg garal ko ci xaatim si mu sarasial yooyu bu mu ubbi ko loolu nga mën na tamit defee nit ci leen ci xaatim yi ba ay ñoom yëpp tëju waaye nag ki nga xam ne dafay dugal wala may danga xaatim ko xamul nit ki moo tax ñi nga xam ne dëgg dëgg dëgg sëriñ si xam dëgg dëgg dëgg kenn doon mm-hmm. ñu xaatim ñu sangal ko mm-hmm. ndax dañ ko xooloo lañu xam sëriñ bi di ko def ba xaatim bi ba noppi mm-hmm. ak la na si dagg la na si bëggoon ñu ngay doon jëfandikoo ñun nag yàlla dañ see tiiri dimbali ñu xam ko bu baax a baax a baax dañ si jëfandikoo sëriñ soxna tey lu ñu jëkk jàngal ñooy xaatim ñu xam ko bu baax a baax a baax mën nga ànd ak ba loolu ñooy xaatim fi ñu ko ñu xool ko te bu xaatim bi dem ne xam nañ ko bu dem xam nañ ko. bu dem ngay mënoon kaa jubante ba xaatim bi tegu ci yoon. Mhm. buñ ko mën a jubante ñëw yoon ñu des ko suuf. Mhm. ndax mhm. digal. nañ si tey def ndànk baax a ndax mën na a tëjee te ubbi a a xam. waaw. moom mooy ubbee ko noonu ñu ekkatee nit ki. noonu la a daanee nit ki noonu la a wàccee noonu ko mën a tëjee ba am naa la day taal. am na ci yàlla musal a baax. baax mm, am na solo ci leeral bu am solo boobu bokk na ci benn boo xam dama doon faaw ma laaj ko lu tax Serigne Abdou Ndiaye biñ ko xamee ba tey benn numéro téléphone la am. waaw xam nga sëñ Sam. Mm-hmm. tey mënoon naa ko téeméeri numéro. Mm-hmm. waaye man sama numéro bii moom sama numéro personnel. Mm-hmm. képp ku may jëfandikoo numéro boobu moom nga ma xamee. moom nga may woowee. ci moom laa lay wuyoo. Mhm. sama téléphone dama ko fay vingt quatre heures sur vingt quatre. Mhm. te nit am na yoon tamit góobu ko. dama mhm. ko def. lu tax loola. nit ñi lay soxla di la woo. tey bu la wooyee si numéro bi yi. bu yàggee seen xel ñaaw. man nag nee la benn fi ma dëkk. du ko nëbb. wallaay benn dëkk waaye benn numéro ku ma woo jot ma. te kuy jëfandikoo man. soo ma wooyee si numéro bi di ma jot. nëbbatuwuma laqatuwuma ndax si dëgg laa ne. su lu leer laa ne. Mhm. aw ma si fenn sens interdit. Mhm. waaw ba mu musuma dox ba nit ko ma. Mhm. wala nit ne ma li ma loolu nii wala ma def laa. déedéet aw ma sens interdit fenn sans aw ma ñaar numéro sans yooyu numéro. numéro bi 2003 ba léegi man ak noonu. waaw. daanaka ñaar fukki at ak benn daanaka fu mu toll nii. wallaay ndeysaan macha allah mu doon lu am solo sëñ Abdou Ndiaye moom la ñuy seqal waxtaan wi tey ji di waxtaan ak moom lenn ci wàllu xam-xam numéro téléphone bi nga xamante ne moom laa koy laaj léegi bi ma ko xamee ba tey moom laa ko xamee mës ta soppiku muy 77 570 25 02 77 570 25 02 boo ci wootee amul secrétaire amul assistant amul dara moom direct ngay jot. mbaa nga fekk mu nekk communication te bu nekkee communication bu paree bu gisee sa appel moo lay woo kon nag moo ko wax dëgg yàlla macha allah loolu itam wax wax dëgg yàlla lu mucc ayib la loo xam ne kenn ku itam boo sañoon ki ngay jokkoonteel fi ne doo ko woo tey ci suñu numéro bi bu subaa nga di ko woo ci numéro bi doon na loo xam ne lu am solo la macha allah rabbi beneen bi nga xam ne sëñ Abdou moom laa bëgg ñu jeexale ko suñu jotaay bi tey ndax waxtu dañ doon wax naan góor ñi tas na kër yeeg lu ne mais fi ne dafa dem ba dafa jàpp jigéen ñi. waaw émiré internet ak extérieur. Hmm. bi xam ne dafa génn ak bi nekk si biir. Hmm. ñaari ko doy waar. am na bu ci gën bon. ñaari ko bon. waaw ah. benn baaxu si. bi génn li ma xaw a tane tuuti rek. Hmm. dañuy yëg. léeg-léeg am ñoom leen émiré day nekk seen biir. te du ko yëg. di ko ji ñu leneen te fekk ni émiré la. ok émiré noonu lay teewee góor. Oh. noonu lay teewee am doom. noonu lay jàppee ay tànk indi day jàpp ay bët hmm. ndax euh, suñu borom sax ñu nga xam ne organe yi doo doonu hmm. ko la jàppee hmm. tey dem ba jàpp organe wax naa benn bu yàqu si biir si biir saako ba si biir saako ko génne noonu dem da boo te surtout ñi nga xam ne ci suñu mbokku téeri yaa suñu mbokku chauffeur yaa commerçant yi xam ne toog maanaam ñi nga xam ne dañuy seen liggéey toog ba sëriñ si ñun nag la a yàgg ok mais dafa dem ba ñi la koy am na ñoom te liggéey ñu loolu mais a koy si ñu ñu teel si am ak gëstu mm-hmm. ba teel qualité mm-hmm. ndax ñun boo xoolee la mm-hmm. ñu xëy soo woon fi ñu toog wallaay nga xam ne émeri sax te mbind mbind mbind mu yàgg mi toogaay bu yàgg bi ba koy yëg bu baax a baax si ay pexe am ci ay garab yoo xam ne dañ koy utiliser. te sentir ko benn yoon suñu bopp. waaye ñu ci jëfandikoo ñëpp it. Mhm. garab gaa ngi ñii. Mhm. wax dëgg yàlla ñu ngi bu baax a baax a baax mhm. garab gi mooy gamooy émeri bi. xam na boobu te ne bii xam ne day génn. boobu bu ko doon ko commencé ba ko te dañ ko diw. ok da ngay dagg ba mu jeex tàkk. waaye bii moom boo koy naan sëñ Sam. émeri moom doo ko yegg fenn fenn fenn sa yaram. est-ce que. émeri ba jàpp sa say awra. wala dem ba jàpp say tànk. wala mu jàpp say say say cër. Mhm. ak fu mu mën a doon say cër. noonu la koy wéralee ba mu bàyyi. ok day gis nit ko xam te day am problème biir. Mhm. yàppal na leneen la. Mhm. te fekk du leen loolu émul. am na ñoom tamit seen tànk day dox seen tànk yi diis wala seen tànk a seen bët day dem ba seen bët. di lëndëm. waaw seen i bët di jooy. wala ñuy sànq wala mu mel ne lu teg lëndëm. wala di xasaan ak yooyu. loolu lépp émul bi def. ok. hémorroïde moom feebar bu doy te kon pour gi moom fi ne bu interne beeg bu externe bi yëpp moom boo naan mën na ko. saafara day faj ñaari. ok garab yi day faj mm-hmm. te képp ku am te si siy jëflanteeg yow. Mm-hmm. ñëpp ñu a am na si ñoo xam te surtout ñu mm-hmm. baree baree baree baree daan ko duñ ko duñ ko jeexal. ok mu jeexee ñu woo ñu. ndax traitement bi moom boo ko defee ba mu mat. Hmm. maanaam hémorroïde moom mooy tàqali ko nga am na. Hmm. waaw hmm. ñaata temps jël moom fi mu toll nii. traitement bi bëriwul. ndax la ko waxee sànq rek. seen organe bokk. ku nekk ci organe am. waaw parce que mu ngi dépendre de sa organe. am na ñoo xamante ne tey bu ñu jëlee ñaari sachet. daanaka euh, duma wér naa. am na ñoo xamante ne day dem ba ñetti am na ñoo xamante ne benn sachet bi bu ñu ko yëg seen bopp. waaw mhm. mais daal garab bu baax la ko tamit képp mhm. sa kon moom différence am ak bi nga xam ne dafa génn bi bi nga génn moom dafa am beneen produit boo defal boo xam ne moom lay faral di diw ci bi génn bi mais teew day naan bii. day naan bii ndax buy mhm. balaa moo génn day nekk ci biir. boo demee ba nekk ci biir ba mu yàgg. i lekk bi ci tàmbali yëpp muy génn ndànk ndànk. ok bu ko defee nag boo ko rayee si biti. rayee mhm. ko si biir. Mhm. moo tax man damaa defal mhm. bi nga xam ne génn ko si biti. biir rek lay jëfandikoo di ko naan. ci biir ba dootul génn. bi nga xam nag xas ci génn. day jël ñaar yëpp. ko defee muy diw di naan bii. da koy contrer. Hmm. da koy rey si biti di ko rey si biir bu ko defee ñaari yëpp day wér. Hmm. boobaa dana ba dootul jàmbat immune. ok waaw muy garab yu baax na ñoom soo moom. macha allah kon kon kon fi mu toll nii moom fi ne moom tam hémorroïde moom mën naa tere nit ki am doom man dama defoon ne fi ne xëy na euh, doom moom dafa dépendre ci ci ci ci ci ci ci maniwu doomu aadama bi soit moom oyof ba wala moom manqué doole ji mu war a am mooy mën a tax nit ki du am doom. hémorroïde nag day yàq loolu. ok day yàq maniwu doomu aadama. Hmm. day téye nit ki dootu mën a sëy mhm. day delloo awra góor léegi nit konte ne awra mën naa gudd loolu émori da ba awra bi daanaka ma si gis nga léeg-léeg ñu mu jàpp sax nga duñu bëgg a dem woon ak sax duñu mën a dem woon ak balaa ngaa day la ah, wala xaw dégg am na te ne buñu la wax dañuy onk wala ñuy yóof na demoon ak sax dañuy dañuy génne dara waaw gis naa ko xam gis naa ci koo xam ne moom bu dara desul lu du war a demoon ak moom fi ne mu tàmbalee jooy émori moo ko def maanaam day génne dara léegi seen ginnaaw bi day xaw ko fu mu toll di ko wax wala muy tàng jër nga gis benn euh, sënër boo xam te ne ñoom sax da hmm. am na ñoo xam ne ñaari paa yu ñu dox. Hmm. nga gis ñu jël seen loxo nekk seen ginnaaw di woo. wallaay ndeysaan. day xasal fu mu toll fu mu toll. wala muy amee tàngoor boo xam te ne maar day tàng. ndax itamit feebar da boo xam te ne si biir lay ne. Hmm. si biir lay ne nekk feebar bu doy waar. moo tax li mu mën a yàq seen dafa bari lool. nee naa la bari na ñoom benn seen bët day fulu émiré moo ko def. dëgg la émiré. ba seen bët seen gisukaay sax leerul. am ñoom tamit day xasan. ndeysaan am ñoom tamit feebar tànk tànk koy def. wala muy ruux ñu naan rhumatisme la fekk booba émiré la. émiré bi la bu wéree day waar day yàq kay sëñ bi loolu moom waxuma la ne moom du doy na day gis comme tey day lu mën a jóg. mel ni lii dafa am problème ndig. Mhm. te fekk ne hémorroïde moo koy def. hémorroïde moom feebarul doy waar la. non moom kay sëñ bi loolu <laughs> kay romb na doy waar fi mu toll nii. macha allah loolu moom fi nga xam ne dinañ jàppaat beneen jotaay boo xam ne faaw ñu toog gën cee tas gën cee faram-fàcce parce que sëñ bi hémorroïde moom man nee naa la gis naa ci doomu aadama yoo xamante ne nii. niñ koy jooyee niñ koy jàmbatee man sama bopp damay dem ba mujj gi damay ñaan yàlla dama doon ñaan yàlla naan yàlla bu ma hémorroïde daal ci àdduna man loolu laa doon ñaan parce que damay gis ay magum jëmm sëñ bi toog di tuur xéwal di jooy mu leen ni kon kii la koo jooyloo fi mu am na fu mu yegg ci moom. ni ma méttee nii sax waaye boo ma teeloon su ma xamoon da ñëw. Hmm. dinaa la mën a décortiquer hémorroïde. Hmm. yan conséquences la mën a def ci nit. non sëñ bi loolu dañuy jàppaat jotaay fi ne ñëw def ko parce nit ñi dañ fa nit ñi xam ba pare lan mooy causé hémorroïde bi tam lan mooy tax nit mu dal nit ki tam. loolu lépp mm-hmm. incha allah rabbi. Mm-hmm. ma teel a xam yaa ngi ñëw. Mm-hmm. boo la. incha allah rabbi lii ak lii ak lii ak lii ak lii moo koy waral. te lii ak lii ak lii ak lii ak lii lay gàllankoor ci nit. ci xeetu tànk yu nekk. ci xeetu biir mhm. yuy métti. ci xeetu ndiglu yuy métti. ci xeetu bëgg yuy métti bëgg yu xasan. bëgg yu bëri si wetu wàllu ngóor lu mën a def. Oh. bu dee jigéen mën a kaa teree am doom. Mhm. te lu muy gën di màgg nag. Mhm. dégg di gën di indi ay jafe-jafe nit ki. bi muy gën di dem a indi mm-hmm, mm-hmm. waar. doy bi macha allah yal na yàlla xeb dolli te gën a dëgëral taxawaay bi te gën a yokk xam-xam bi xanaa rek benn question bu ñu jeexalee rek ndax gannaaw waxtu bi moom daanaka mu ngi noonu euh, dañoo dëgmal examen yi. ak concours yeeg yu ni mel euh, léegi nag gaañu nañ sëñ Abdou ci wàllu faj ak nangam nangam man leen sëñ du yamut ca loola. Mm-hmm. am na yeneen bagage concours yeeg examen yeeg ñiy xëccoo place ak yu ni mel lan la sëñ Abdou lan la leen sëñ Abdou dencal fi mu toll nii rawatina ci jamono bi ñu toll nii. laa loolu moom dañ ciy sant yàlla baax a baax. Mm-hmm. xanaa di wax ne képp koo xam na ngay examen. Mm-hmm. boo mënee wax ñaari baat yi rek. Mm-hmm. wa saabiquuna saabiquuna. boo ko dee wax. yàlla mën na laa may nga at mi. waaye nag am na ñu si jëflante ñoo xamante ne moom dañuy hmm. jëflante ñoom ci mbirum baax mi ngi fii képp ku ñëw hmm. yàlla na ko defal nga at mi hmm. ci kàttan suñu borom a jaar yàlla si sutura suñu borom ndax dañ koy ñaan rek wallaahi ndeysaan wallaahi waaye nag yàlla defal nañu si sutura baax baax am nañu bari ñoo xamante ne woo ñu ay doom ñu am nañu si jëflante macha allah wax dëgg fa yàlla yàlla nañu si jëflante ay nit ay at yàlla nañu si defal sutura alhamdulilah loolu daal ñu sant baax a baax. yàlla na yàlla xepp ku ñu ngoo si numéro yi. allah sa doon def examen ak bu mu mën a mm-hmm. ba si def examen ay douane police. Mm-hmm. concours yi mm-hmm, dañu si woo. ndeysaan dañu dem ba gëj a ay nit dañu si woo. ñu jëloon ñoom ci yu mel noonu. yàlla defal sutura. ndeysaan waaye lépp dañ koy santee allah rabbi jërëjëf sëñ Abdou Ndiaye la ñu àndaloon ci waxtaan wi nga xamante ne moom lañ fette fam tey ji wax dëgg yàlla doon waxtaanee waat ak moom lenn ci xeeti jàngoro yi nga xam ne fi ne daanaka dafa tënk réew mi waaye itam lenn itam ci wàllu xam-xam wax dëgg yàlla dégg ngeen ko ni ma leen ko waxee léegi rek benn numéro téléphone la yor boo xam ne ci ngeen ko mën a jotee saa su ne muy guddi muy bëccëg muy taw muy naaj lu ci mën a doon bon numéro boobu la yor ci nga koy wooyee ci la lay wuyoo amul assistant amul secrétaire amul dara moo na soxlas doomu aadama bi sutura la war a doon ba tax na fi mu toll ni moom utul yooyee yëpp di ko def fi mu toll ni benn numéro boobu nag mooy vingt 77 570 25 02 77 570 25 02 mooy numéro téléphone bi nga xam ne mooy benn numéro bi mu yor ci lañ ko mën a jotee ci nga mën a jokkoo ak moom lépp loo xam ne lu mu a la boo ci jokkowee ak moom incha allahu rabi ko fa nga xam ne fa la ko ak la mu gëstu ni fa la war a jaarale ak li ci suñu borom di def li ci def ñu wàcce kook suñu borom moom mi nga xam ne moom moo sañ mën am tey def mu daal di dogal ci ay dogalam sëñ Abdou lan mooy doon kàddu yu mujj yi ci biir jotaay bi tey macha allah ñu door a ko xanaa ñu mën sant yàlla rek. ñu sallallahu alayhi wa sallam suñu seex suñu yaakaar seexul xadim di am mbégte bu baax a baax suñu teewaay. Mm-hmm. di ñaan lépp lu ñu wax rek képp koo déglu rek. Mm-hmm. di ñaan ku ñu jëfanteel yàlla suñu borom defal ndam. allahumma amiin yàlla yàlla def euh, lépp di njëriñ ci ñun. di mm-hmm. njëriñ ci ñoom di njëriñ ci biir yàlla. amiin yaa rabbil aalamiin ndax lépp lu ñu fi wax rek. waxee woon ko suñu bakkan. déedéet wax ngir ñu convaincre kenn war na neex kenn. ndeysaan dana wax suñu akulaay taala. suñu diggante suñu borom. ndeysaan ndax li ñu gëstu la xam ko. jàng ko toog si nag. Mhm. di si liggéey yaa ngi si defal sutura. alhamdulilah tey boo ñëwee sàkku si ñu defal nii. Mhm. waxtaan ci ñu jàppane rek. Mhm. fi jamono toll. maanaam bu baax nañ koy yaatal mu yàlla. donc nekk mun see seet na ne. yéegu moom sax da ngay ñëw ngir. <laughs> waaw noonu laay defee man. <laughs> man moom noonu laay defee. <laughs> ndeysaan kon boo ñëwee dina mën a gàntu. faaw ñu def lii. waaye nag di ñaan rek. yàlla na yàlla def lépp nekk taw. allahumma amiin yaa rabbil aalamiin. waaw mu nekk suñu njëriñ. amiin yaa rabbil aalamiin nekk seen njëriñ nekk sant ko bu baax a baax gërëm ko ñaanal ko yàlla suñu borom dolli koo taxaw dolli guddal fan wi gën a wéral cër yi yeggali ne wax dëgg yàlla na ko askan wi ci daraja ko waxee noonu la demee dama ko war a ne ko maa ngi fay ma doon dox si waaye xam naa ni moom gannaaw mi ngi ci leen li te nangu wut bi feeñ ci réseaux sociaux yi waaye man gannaaw sañta bañ lay doon ci man ma bett ko defee ko nii moo tax mu demee nii waaye incha allah rabbi dana ma may jotaay boo xam ne danañ gën a ñëw gën a yaatal lu baree bari ci xeeti jàngoro yi ndax li muy doon doon doon doon doon ndaw bi mu jàngee ci daara ji ba noppi dafa génn gëstu ji waat yu baree baree bare yoo xam ne ndax nee leen kii tax ba ma ñëw tey moom daanaka moom daanaka gaboo lañ xamante ñoom ñaar mu di ma wax ci moom te xamul woon xam naa ko ba tax ko ne kon ñoo ngi ñaan lu baax a baax ci daraja yonent Yàlla Muhammad barkeb Cheikhul Khadim suñu yaakaar sa borom guddal yi ko askan wi mm-hmm. waaye ñaan bu baax a baax rek mbooleem koo xam ne seetaan nga vidéo bi lépp luy sa yitte di sa bëgg di sa mébét suñu borom mi nga xam ne moo dul jeexal dara yal na yàlla jàppandal lépp ci darajey Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. jox leen dig daje incha allah rabbi ci beneen jotaay ak seen émission bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro ci biir Salam